seex ñi mu teral ko teraloon. nee na seex ñi mu teral ñëpp bu nu dellu si waatoon teral ko moom seex. ba ci état beeg ñëpp nag ba ci état beeg ñëpp. du am jaaxle nee na du jaaxle ci dara. dañ laa war a jàppale. nee na li muy sant nag ñëpp nag état ñëpp ñu jàppale la. ku lay xeex ci phosphate ak laneen. nee na ku la mën a xeex ci phosphate ak yi nga am ci réew mi. du président moom. nee na na la leer na du président de la république. man nag ministère boobu dama ko soxlawut. nee na ministère ba lay a xeex nag moom nee moom. soxlawu ko man dara de. nee na kooku xamut moom dara. lii may wax bu leen ko dagg de. nee na li muy wax mi ngi ñaan yàlla ngeen wane ko. ministère bu mu naqari nga téye sa mbir. nee na bu mu naqari nga téye laa ne man. nee na foofu la nekk maa ngi ñaan yàlla mu la mi ngi delluwaat di ñaan yow Cheikh Amar yàlla jàppale la wéral la yàlla dëbb la kàttan ak wér xam nga na la dëbb na la kàttan ndax fi nga jaar ñu bari faatu nañ ci ko gën a nee fi nga jaar nit faatu na ci lu a tuuti loolu da nga yëg loolu nee na ko xam bul am benn complexe nee bul complexe wu ci dara wal huyoonu hum yun laa tara ay nit ñaa nga ne xajj di xool waaye gumba gumba xolloor nee na nit ñaa nga ne xajj di xool nga jàpp ne ñu ngay gis te fekk na ay gumba xolloor lañu dañoo gumba nee na gumba nañu bu yàgg mënuñoo dox dox yow nag yow nag jàppal ne foofu nga ne nee na jàppal ne foofu nekk boo fi newut ci ñëppit boo fi nekkut ci ñëppit kii di wax kii di wax di Serigne Moustapha nga xam ne nga xam ne kenn jommalu ko li muy wax bu ma ko waxee man kenn na li muy wax bu ko waxee ci ñi ko xam duñ ko wax dara ndax xam ne ne wax li wax la gëm nañ la jàppale nee na mi ngi sàkku état beeg ñëpp ñu jàppale la nañ la jàppale nee na nanu la jàppale nañ la fay say xaalis nee na luñ la yoreel nan la ko fay nañ la jàppale lépp luñ yor ci jàppale goo soxla nan la ko jàppale lu ci yoon nee lépp loo xam ne tegu na ci yoon nañ la ko jox mi ngi ñaan yàlla di ñaan état bi ñu defal la ko ndax ndax li nga def ci réew mi bari na ndax nee na li nga def ci réew mi lu bari la lu bari lool nee na bari na lool te man nag te moom Serigne Moustapha mi wax du la wax dara ndax loolu day indi ay problème nee na du la wax dara nag waaye ndax day indi ay xaal wala mu indi ay problème ndax xam nga man kuy daw ci ginnaaw nit la nee na ndax xam nga moom sëñ Moustapha kuy daw ci ginnaaw nit la wala du ko ciy daw su ma doon daw ci ginnaaw nit koo kay koo kay fakkaftalu day xalangu nee na kam yi daw ci ginnaawam day far daanu mu jaar ci kawam jàll li may wax dëgg la nee na li muy seere ci yow ci sa jëmm lu mu gëm la lu dëgg la na nga gën a jàpp nee na mi ngi lay wax nga gën a puukaréwu te gën a dëgër te a jàpp rek laa bëgg na nee na loolu la bëggoon a seereel mi sagale la ko sagale ko jàpp ne. nga jàpp ne. tey nga gën a daar ci tey daal nga gën a dëgër ci kanamu Cheikh Moustapha mii taxaw. Eh, kon nag eh, maa ngi dellu nag di sant Cheikh Mouhamadoul Mountakha. mi ngi delluwaat nag ginnaaw ba la santee ba noppi di sant suñu kilifa ñun ñëpp Cheikh Mouhamadoul Mountakha. Mm, li muy wax ci yow boo ko nettalee sax dañuy wax ne amut. nee na Serigne Mountakha kat li muy wax ci yow boo ko nettalee da ngay jàpp ne lii kii dafa sob di wax rek amut. li ñuy wax sëñ Cheikh li muy wax ci yow boo ko nettalee noonu lay demee. nee na la seere yi Serigne Cheikh um sëñ Saliou di seere ci yow Cheikh boo ko nettalee noonu rek lay demee.